mbégte la ñu ànd ak yéen ci DKR 221 ñu demandoo ci li gën a fës ci ëttu yëglekaay yi Walf Quotidien lañ koy doore fësal ca xëtt mu njëkk Amadou Ba di candidat malheureux ñëwal élection présidentielle du mars journal ba di xam ne moom Amadou Ba nag dikkat na ci langue gi doore ko ak attaque yu méttee métti jëmale ko ci gouvernement bu bees bu Sénégal ci njiital président de la République Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre am di son Sénégal ba léegi tuuri rangoñ ak ne fi di wuti taafanda laay lan fi nekkee daanaka saafari wun benn jafe-jafe boo xam ni askanu Sénégal ña ngi koy jànkoonte ba tax na moom Amadou Ba di xamle que ni jot na sëkk nak askanu xoolaat seen taxawaay ci élection législative yi nga xam ni dëgmal nañ ko les échos moom tamit te mbir mu ni mel la addu jëmale di xam ne Amadou Ba mi Amadou Ba damaa demoon congé wante dikkaat naa fu si ne jàmmal ak ak Diomaye bi nga bu Sénégal maanaam di jooytu dëkkee wut ay taafante laayu ba na mënu ñoo saafara benn jafe-jafe boo xam ni askanu Sénégal mi ngi koy jànkonteel jamono bi nga xam ne askan wi daal ku leen assuré leen bëgg wante moom Sonko ak président de la République Bassirou Diomaye Faye jamono bi daanaka ba nekk ci bopp ba léegi askanu njàqare lay dund ak daanaka fitna ju mettee metti direct news moom tamit daanaka mbiri Amadou Ba la jëleel xëttam mu njëkk ba léegi di xam ne ginnaaw am solo jëm ci politique bu Sénégal ba tax congé mais je suis de retour maanaam damaa jëloon congé wante dikkaat naa ci langue politique gu Sénégal ngir faire face ak Sonko ak Diomaye jamono bi nga xam ne jàpp mooy nga xam ne jafe ba tax na ma ngay nga xam ne dëgmal nañ ko nañ xool seen choix bu baax a baax xool seen tànneef ndax président de la République Bassirou Diomaye Faye ak moom it di Sonko weer rek lañ defagun daanaka ci bopp réew bu Sénégal askan wi doon mbir bu baax a baax mu nekk attaque yu nga xam ne kon Amadou ko ci bopp réew bu Sénégal war a tàbb ay député fële ca assemblée nationale bu Sénégal Vox Populi fësal ca xëtt mu njëkk porte parole bu gouvernement bu Sénégal di Moustapha Sarr mu fi ñukk Amadou Ba ak attaagam dem tontu directement ka nekkoon patron jëm ci wàllum politique ay jamono di Macky Sall Moustapha Sarr ko yow Macky de jamono ji war nga am gàcc ak yiraange gu baax a baax nag yëkkati sa kàddu jëmale situation politique bu Sénégal ginnaaw bilan macabre l'économie daanaka tous les secteurs sont rouges te nga taxaw naan j'ai laissé un pays avec des indicateurs verts mu nekk rek loo xam ne moom Moustapha Sarr moom koy ñaanlu bu baax jëm ci moom mi di Macky Sall lu jëm ci bu fekkee moom Macky Sall dafa dikkaat ci dëkk bi dañ koy jàpp wala déet moom Moustapha Sarr di xamle kan ni moom mi di Macky Sall bu ñëwee ci dëkk bi daal bu ko neexee na dem fu ko neex amal campagne li feeg teguñu haute cour de justice ngir bi ancien chef d'état bi di Macky Sall la fësal ca xëtta mu njëkk di xam ne ne jamono ji daal mu Macky ay jafe-jafe moo door ci àdduna wërngal këpp li koy firndeel du leen dudul fële ci diwaanu États-Unis d'Amérique ndaw sii di Oumou Diallo bokk ci Pastef les patriotes daf koo xañ mu mu nekk orateur ci benn conférence bu nga xam ni ñu doon amal ci université de Columbia moom ndaw si nag gar ca tànk tuba yam ba Macky nekkul ku yëkkati kàddoom benn yoon jëm ci conférence boobu la war a ni mel muy ginnaaw gestion bi nga xam ne également def na ko ci ans yi passé ci bopp réew bu Sénégal ginnaaw bañ ko tabbee en tant que président de la République ba tax na journal banque du Pénan Oumou obtient la tête de Macky Sall xam ne xañ na ko bu baax a baax nag mu nekk orateur ci conférence boobu ñu doon amal foofu ci université de Columbia ci États-Unis d'Amérique Sud du Quotidien ma nga àddu jëmale ci département fleuve Sénégal ba nga xam ni nemmeeku nañ ko faarootu également ay blessés yu bëree bëri ay risque de sécurité alimentaire maanaam askanu ab xiif di leen yot également rax ci doolu également jamono ji ñu toll ñoom askan woowu école daanaka amul benn xale boo xam yaa ngi fay jàng ginnaaw ndox mu bëree bëri ma nga xam ne nangu na seen kër seen i dëkkuwaay ak seen nekkin ñoom ñooy dëkk ca gox yu ni mel mu nekk nag situation bu nga xam ni moo waral armée bu Sénégal amal mobilisation bu am solo ngir jàppale askan ñi féete ca bërëb ya déplacé leen ngir ñu mën a am mu ni Kolda gone gu am juróom-ñaari at mu nuwaale ci ndox ma bokk ñetti bakkan yi nga xam ne kon jot nañoo root ci catastrophe bi nga xam ne am na di débordement du fleuve Sénégal ba tax a ma jamono ji la wër ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ni ña ngi koy jànkonteel foofa ca nord du pays la turbine bu bugaan gay dén moom tamit biral jëmale ci mbir mu ni mel xam lekka ni jamono ji daal askan ñi dëkk ci bërëb yooyu état bu bees bu Sénégal de la République jàppalewu leen mu nekk nag posture bu benn yoon bu ñu ci huit milliards jagleel leen ko alal moom Sénégal wàcc ca bërëb ya dund ak lekk di leen déplacé également yóbbu leen ci bërëb yu nga xam ni seen dund dina gën a baax ginnaaw jafe-jafe ya nga xam ne ñu ngi koy jànkuwanteel foofu ca Bakel Kanel ak Matam ak jàpp lu ni mel bi le jour ma ñu tout sauf le report de xam ne naam situation ya am daal le nord du pays métti na bu baax a baax nag askan ya di jafe-jafe yu méttee métti wante warul tax ñu dàq élection législative yi nga xam ne dëgg nañ nañ ko dans les projets ak également vote des budgets ya nga xam ni war ko amal ca assemblée a am positif dem voté tabb ay député fële ci assemblée nationale bu Sénégal l'observateur mbir mu ni mel la jëleel xëta mu njëkk moom tamit ma nga naan fële ci diwaanu nord du pays Bakel Matam Kanel ak lu ni le chaos total moo fa am jamono ji benn xale daal fay ba bakkanam trois morts également am fa mu nekk askan woo xam dañoo submergé dans l'eau maanaam dugg ci biir ndox mi jamono ji seen i kër seen i nekkin seen i dëkkuwaay lépp daanaka département fleuve bi daal bu baax a mu nekk jafe-jafe yoo xam ne nag armée bu Sénégal jamono ji ak lu mu

accusation de mauvaise gestion des finances publiques yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko di ay kàddu tuumaal ko ko ci kanam askanu Sénégal moom Ousmane Sonko doon xam le ni un pays en ruine la fi bàyyil tey ji Macky Sall nee na kàddu mel bu mu jëm kaw benn yoon ndax du ko mës a nangu ndax ci dëgg-dëgg bi mu bàyyi dëkk bii Sénégal lépp gongo lépp a ngi dox askan waa ngi doon gis seen bopp bu baax a baax xanaa kay bu changement amee kon jamono bi na ci bopp réew bu Sénégal mu nekk taxawaay bu nga mel la moom tamit te mbir mu mel addu jëmale fësal ca xëtt mu njëkk ancien président bi di Macky Sall mu biral ay kàddu ba tey ci journal ba di xamle naan j'ai quitté un pays où les indicateurs étaient verts maanaam man Macky ba ma jóge ci dëkk bii di Sénégal le 2 avril 2024 lépp ngi doon dox lépp gongo askanu Sénégal doon gis seen bopp bu baax a ci sama doxalin kon tey ji du ma nangu benn Ousmane Sonko yëkkati kàddu naan man maa rappelé moom Macky Sall doon xamle kan bépp dërëm boo xam ne lem na ko ci ndoddu Sénégal yi daf koo defaat ci réew mi financé ko li xam ne mooy liggéey yu am solo yi nga xam ni jot na koo amal ci bopp réew bu Sénégal Vox Populi ma nga naan ñu Macky république contre Sonko maanaam moom Macky Sall di ancien président bu Sénégal jiite dëkk bi li ko dalee ba taxaw na ni ki tey ji nag tontoom jagle ko ki xamal kan ni la bàyyi rek ngay wax di ma a daal di jéem raxasal boppam ginnaaw mu set wet yi raxte doolu bi gën a biral kàddoom di xamle que ni lii rek moo waral nag mu dikkaat ci langu politique gu Sénégal di jii bañ seetaan benn yoon ñaar ñi di Sonko ak président de la République Bassirou Diomaye Faye ñu ak ñun ministre bi di Sonko jot présenté askan wi journal ba di xam le nii nañ ca sukkandiku ngir développer dëkk bi di Sénégal d'ici 2050 wante nag ginnaaw loolu lépp nañ dikkaat dans la réalité de 2024 bi nga xam ni askanu Sénégal ñi ngi jànkoonteeg jafe-jafe yu méttee métti également inondation yi sonal gox goxaat yi nekk fële ci diwaanu Matam ak lu ni tax na journal ba biral di xam le nga xaar bu baax a baax taxawaay gouvernement bu Sénégal mu jàppale askan présidentielle yu 24 mars 2024 moom ndaw si nag niki tey jii bokk ci opposition politique bu Sénégal yëkkati kàddoom di xam le projet bi nga xam ni moo développé dëkk biir Sénégal mën ko duppee naan tout ça pour ça moom Anta Babacar Ngom daal jàpp ni li nga xam ne Sonko Diomaye proposé nañ ko di benn référentiel de politique publique jëm mu nekk yoon woon xàll ngir suqali dëkk biir Sénégal askan wi kenn ku nekk gis sabab ci sa dundin Anta nee daal lu daal xelam Sénégal libération addu jëmale ci wàllum justice ba di xamle kan mbirum 94 yi nga xam ne ab diir ba baag léegi Sénégal ngawtu ngawte nañ ko ba far taay ci bàyyi ko ci diggante Ousmane Sonko ak kii di Mamour nekk na nag mbir bu nga xam ne ginnaaw bu sukkandikoo ci journal bi parquet financier bu bees bu Sénégal daan jël dossier ba fas yéene leeral ba mu leer naan ñi fàttali atum la Ousmane Sonko porté woon plainte fële ci diwaanu ci 94 milliards de francs association mu nekkoon rapport boo xam ne jëbaloon nañ ko ab diir ba baag léegi procureur bu Sénégal wante amul benn instruction boo xam ne am na ca ni ji nag parquet financier bu bees bu Sénégal fas yéene jublu ci mbir mu ni mel leeral dossier milliards bi ba mu leer naññi ci xar kanamu Sénégalais yi sursu a di kaat ci libération ndaw si di jéegi jofaal ginnaaw bañ ko tegee loxo doon koo jiiñ détournement de deniers publics maanaam lu ba di bépp santé bu nga xam ni doonoon ko tudd ci turam ma nga décaissé vingt sept millions huit cent treize mille francs bu ñu journal ba xam ne Diégui sax dafa fay ba wis kay a donné plus qu'il n'a fallu ndax dafa génn ba fayaale cent quatre vingt sept mille francs CFA yu nga xam ni daanaka daf koo toftal lam waroon fay moom mi di Diégui Diop Fall ngir mën retrouver sa liberté dellu ci njabootam l'observateur fësal ci mu njëkk ndaw jógee loxo ba léegi amagul benn liberté boo xam ne am na ko waral nag daanaka mu nga dund lu ci kasu nekk moom ndaw si di Ndella Madior Diouf Les Échos fësal ca njëkk international sénégalais bi di Sadio Mané journal baa ngi ko duppee Sadio Mané sauve le Sénégal di xam ne ginnaaw jongante bu am solo bi nga xam ni Sénégal bi ko doon jongante ak ñi Malawi ñëwal qualification coupe d'Afrique des nations atum 2025 ñu ci dëkk bii a minutes du temps de jeu moom Sadio Mané comme maninam comme ko daan defee yàgg sauver Sénégal defati maninam bu baax a baax ginnaaw coup franc bi nga xam ne teg na ko ci lu leer naan wala Sénégal mujjee gañ a jogante ba 1 bi à mu nekk ndam bu am solo boo xam ni ki tey jii moo ko baaxee équipe nationale bu Sénégal wala ñu di qualifié ci Coupe d'Afrique des Nations bu atum 2025 war ko amal ci dëkk bii di Maroc Sud du Quotidien tamit victoire bu am solo a gaynde Sénégal yi ñu jëm lépp lu ñu man mu ñëw dugal benn bii wane na ci cëppaandaw moom mi di Sadio moo jël ses responsabilités à deux mais comme ni ko jàppale ci liggéey bi bu baax yaa di qualifié ci Coupe d'Afrique des Nations bi nga xam ne dëgmal nañ ko war ko amal ci dëkk bii di ci atum mu nekk nag ndam bu am solo boo xam ni ki tey ji gaynde kon am nañ ko fële ci diwaanu Malawi ginnaaw daanaka jafe-jafe yu bëree bëri nga xam ni jànkoonteel man ñoom tamit ngir mën a décrocher seen qualification ñëwul coupe d'Afrique bi ñu dégmal wante heureusement nag Sénégal mu mujjee am ndam bu baax baax ci kaw ñi di waa Malawi daal di qualifié ci coupe d'Afrique bi nga xam ne dégmal nañ ko record moom tamit daanaka mbir mu ni mën la jagleel xëttam mu njëkk ak mu am nañ ko niki tey ji équipe nationale bu Sénégal supporter également am ko ginnaaw seen qualification ci li nga xam ni moo yu am solo yoo xam ne am na ko moom mii di Pape Diaw premier match bi nga xam ne recevoir na ñi di Malawi fële ci stade Abdoulaye Wade ba Diamniadio dóor leen 4 buts à 0 ñeent ci dara mu nekk loo xam ni progrès bu am solo la également ni ki tey ji gànnee déplacé fële ci diwaanu Malawi également amaat fa ndam bu am solo ginnaaw taxawaay bi nga xam ni Sadio Mané amal na ko dugal bi bu am solo dans les dernières minutes du temps de Mbaye yëkkati ay sargal yu am solo jagleel ko ñi di gayndee sénégalais yi ginnaaw bañ décroché seen qualification ñëwal coupe d' afrique bi mu leen sant di leen gërëm di leen gën a ñaax également di xaar gayndee sénégalais amal taxawaay bu am solo buñ demee ca ngir gagné seen deuxième coupe d' afrique des ci seen taarixu football mu nar a nekk mbégte mu am solo bu nga xam ne kon buñ ko fekkee ca tal ko gayndee sénégalais yi nar nañ caa dem ak supporters yu équipe nationale bu